non seulement il faut le changement du Sénégal aussi bon c'est quelqu'un qui est aimé aussi par la population sénégalaise donc vous êtes d'accord bëgg de manière en tout cas de manière dynamique parce que faut changer le Sénégal Maintenant, maintenant, qu'on bi bon finalement ça les gars n'ont pas le poids à à dire parce que am les ngay affaire qui n'aura même pas le temps de s'exprimer ou bien de vivre de quoi ce soit donc donc, il est dans cette position pour en tout cas mettre le Sénégal le euh, Sénégal émergent en tout cas. moo tax gars yi bëgg ko. ok on vous remercie. waaw asalaamaaleykum Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. man de wax dëgg fa la kon de mosuma intéressé quoi. mais Sonko moo tax ma intéressé ko parce que vision ak option bu mu am ci Kolda quoi ak Sénégal tamit comprendre nga. dafa am avancement bu ñëw fekk nit ñi ñu ngi nelaw mu yeewu ñu ngi ci lu bëri donc am nañu yaakaar ci moom am nañu vision ci moom tamit. mu amee vision ci Afrique bi léegi yow lan nga xalaat lan nga xalaat Sonko ak euh, avenir u Sénégal lan nga xalaat ci moom. non mais Sonko incha allah rabi moom boo boo gisee ci carrière am par rapport ci lu passé. xam ne que sama Sonko bi daf tamit yaakaar parce que incha allah parce que ñun moom ci loolu lañ gëstu ci moom ba ñu ba ñu jàppale te gëm nañu ko moom bu tax suñu yaakaar boo gisee ñu bàyyi suñu lépp ñëw nii xam nga ñëw di ko yóbbu di ko di ko di ko maanaam ñu perte ñu perte suñu suñu ñu gis ci moom quoi te borom xam-xamam yëpp a ko nangul Sonko borom xamam yëpp a ko nangul te ñu defe nañ koy nangul parce que incha allah rabi man de gëm naa ne que incha allah moom bu jëlee réew mi lu bëri la lu bëri dafay ko kii dina ko soxla kii quoi incha allah. donc le dernier mot. waaw le dernier mot mooy na Sénégalais yëpp booloo. ñoo jàppale Ousmane Sonko. parce moom la ñu am bu ñu rëccee nag dañuy toll balaa bu ñu rëccee nag ñu ngi ak téeméeru loxo quoi. ñu jàppale ko mu toog ci réew mi quoi incha bu njëkk bi mooy ñu essayer organiser bi parce que souvent suñu waa sécurité yi ngeen di gis il passe beaucoup plus de temps di xëccoo nos que di gérer des menaces kon xëccoo ak ñoom jaru ko da ngeen leen di yombalal liggéey bi nous sommes nous dans nous ñun ñëpp benn équipe Yönetimliğini defin define kolon. Hamlen sen tasyon. Hamlen sen yeni çürüm. Nedir bu adım üzerine koydu. Yok iş olan. Ils ne sont pas là contre vous. Ils sont là pour menacer extérieure pour la région. Mais vous devez dire que vous êtes sen doole yi leen di wax avancé ñeneen di jugee ñeneen donc dañ leen jàppale depuis des nit ñi di daw lekkuñu naanuñu nelawuñu bëri donc yéen tam xam ngeen seen ngeen ngeen bëri doole donc da ngeen ko ñànge na ngeen leen yombalal liggéey bi deuxième chose aussi deuxième ne ci yéen ne serait-ce que cinq minutes

Okay, you put your zelf aan. Tot them up. qu'il faut bien plier bagage d'un seigneur. Vous muñ tout tuuti votez leen d'abord parce que nous savons que vous allez majoritairement voter pour l'intercoalition Yewi wanou je vous dis que ce pays est reprenable Les am il y a la ni et c'est vous qui devez en bénéficier c'est pas pas les Moustapha les Makissan.

da ngeen ne woon ñu dugg waaye du ñu dugg ci hôpital parce que ci campagne la ñu nekk waaye hôpital bi dafa boole ñaar dafa boole matul hôpital ndax kenn du fi faju li fiy dugg di génn ak ay problème mu ëpp li fiy dugg faju muy benn ci échec yu gën a mag ci échec boole beneen problème boo xam ne ci échec bu Macky Sall yi la hôpital bi fi mu ne nii dafa inondé hôpital bo xamné les gens sont sous les eaux kon xamné ni problème nek fi di les problèmes et les échecs de Macky Sall weesu les bokk le discours est le même il faut sortir voter massivement nous fermer la page Macky Sall ouvrir une nouvelle page pour le Sénégal kon nag animateur dama bëgg nga may minutes 5 minutes bo xamné donc ak animation cinq minutes rek bu mu weesu loolu comme nag dugg si nañu Casamance nag mooy rythme mooy sonorité ba bëgg nga may minutes ñu may suñu wéyu bopp kon nag lan la ñuy commencé oh, oh fas yéene ñaanal la nga tàmbaleek fa nga bëgg a yeeg jàmbaar. marawaj. dëgg la gaynde warul tiit moom du ragal jàmbaar. marawaj. moo di buuru àll bee la fekk dalay daal loolu la nga full of fire. yeah.